ok euh, Ndeye di met waaw dégg naa seen préoccupation mais man dama bëggoon intervenir juste rek ci prix Goncourt bi mhm. nga xam ne ni doomu Sénégal daf ko gagné. Mhm. ñu koy rafetlu et puis tamit euh, comme ni ko Serigne Saliou waxee damay insister foofu am na xale yoo xam ne euh, kenn xamu leen dans l'anonymat mhm. ñuy bind ay bind yu am solo loolu dañ ko war a génne fësal ko parce que am na xale boo xam ne ne euh, ci jamonoy Shoah bi ñuy exterminer les les juifs xale bi mi ngi tudd en Frank mhm. donc bi mu nekkee ci kaso bi la bind ay ci journal intime am la doon bind ay récits ay poèmes yu bare bare bare bare mm. am na boo xamante ne nii dañ ko partagé dans le monde ñëpp di ko jàng muy père ne me comprend pas mm. donc muy expliquer difficulté nga xam ne nii juif yi am nañ ko donc loolu yëpp tey wër àddina bi te am na aussi ay xale yi nekk fii Sénégal itam di def liggéey bu am solo boobu noonu di bind mm-hmm. te euh, ministère yi war leen mm-hmm. jàppale beneen bi aussi xadi dañu jub ay campagne électorale xam naa mm-hmm. dinañ fi dégg façon promesse bu nekk te tamit euh, ci quartier yi tey dañu war a dimbale xale yi ci lecture te collectivité locale dañu leen di interpeller ni ñuy defee ay jardin public baax na mais aussi tamit nañu yokk ay espace yoo xam ne xale yi dinañ fa mën a dem mm-hmm. pour ay bibliothèque ñuy mën di lire am na solo Mansour li lay di wax moom laay rejoindre rek même espace public sax day bu ko ñëpp amee sax dina la permettre nga dund mën a toog fenn sax concentré wu lire man maa ngi fàttaliku Euh, sama première ak deuxième année université yëpp ak situation bu compliqué bu ma nekkoon ci jardin ñaari tali yi laa doon jàngee. Mhm. donc mun na permettre nit mu jàng surtout ñu am situation yu xaw a metti nga xam nekkuñu ci nekkin wu leen permettre ñu jàng. Mhm. mais euh, bu weesoo loolu ndey li mu tënk wax ji yëpp loolu la maire yi ak seen promesse yi faw askan wi poñe leen. Mhm. amu ci benn maire boo xam ne pratiquement li nga digge woon def nga ko. dañuy digge nag ba digge nag gannaaw ba leen ko yëgalee dem nañ fa nemmeeku ko xam ne ni nekk daañu def matuwaay yëpp ngir remplacer boobule pièce ba jot ni tee nag France daal di xëddeem loolee nag jur jafe-jafe lu jëm nag ci wàllu paj mi ndax bari na malaat yi nga xamante ne ñu ngi nekkoon di leen faj jamono ji mënatuñ ko tax na sax ñu daal leen woowaat ngir rek ay consultation raf ci dolli du benn malaat bu yees nga xamante nag waa kër docteur boobule mën nañ koo jël ba tax ñooñee mën ñu jotee ci wàllu paj situation bu ni nag doon lu ñu mën a regretter lool ndax ay bakkan xaj na si waral ñoom ñooñee artu jëmale ci ministre la santé mu yee yàbbi ci bile jafe-jafe ngir rek ñu mën cee indi saafara nu mu gën a gaawee. ñu dem diwaanu Sédhiou wax ci ñeenti téeméeri ndaw yu camp d'immersion bu entrepreneuriat agricole bu domaine agricole agricole bu CFA ñoom ñu leen nag dañoo mer ba futtu li ko waral moo di dañ leen naa xamal ni seen ay contrat dafa jeex ñu jàkkaarloo nag taskatu xibaar yi ni ki tey ci suba euh, ca direction bu domaine agricole communautaire yooyu leen ndaw la ñu daal di xamle mooy ñoom dañu leen a tànn ngir ab projet diir bi nag juróomi euh, weer la te la ñu leen digoon moo di dinañu recruter ci ñoom lu tolloog ñaari téeméer ak juróom fukk Euh, ñu euh, daal di sàkku nag ci njiitu réew mi mu du jëmale ci wàllu wi ñoo àndu ceeg Mohamed Ba ñun suñu yéene wu ëllëg xeeñagul neex dañu libéré ne ñu dem leen ngeen toog ñun si toog lañ jógee sëñ bi mënuñu delluwaat ci toog parce que doo leen jël formé leen bàyyi leen noonu dans le rat comme ça xam nga loolu du yoon léegi ñu ne ñoom si 400 yi dañuy def 250 sélection 250 sélection boobu mbir la boo xam ne wax wax la rek ñu ne 100 yi des dañ leen di suivre accompagnement 150 yi des dañ leen di accompagner mais tey 250 yi promettre ñu leen sa recrutement nekk ci biir directeur bi moom amu sa ambition boobu noonu pour defal ñu recrutement de boo koy dénk ab nit da koy dénk ki ànd compétence bi mhm. du question dañ ñàkk de waaye dañu bëgg defar suñu Sénégal xoola quatre cent jeunes yi quatre cent hectares mbokk lañ la bayal sawaay lu tax ñun mënuñoo tekki te suñu bayu bopp la maanaam golo di béy baabu dundee lañ ñu fi bëgg defal loolu duñ ko nangu nangu tey directeur bu dak bu sifa moom indi na leeral jëmale ko ci ndaw yooyu le Aliou Sow li mu daal di xamle mooy amatuñu lu ñu leen fayee bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom dak weer bu nekk doon na génne lu tolloog fanweeri million ak ñaar ndax ndaw bu nekk 80 000 francs la ñu la doon fay Aliou Sow di ci rax dolli nag ni bu ñu bayee ba jaay ba noppi xaalis bi dañu koy dugalaat ngir daal di gunge yooyu leen ndaw rax ci dolli am ñenn ci ñoom ñoo xamante ni dinañu leen recruter ñu déglu ko si contrat 4 mois la ñu ak euh, ndaw yi. Hmm. bu ñu ko signé yaakaar naa ne lépp lu ñu waroon def nañ ko ak ñoom. Hmm. weer wu ne ndaw bu ne war nañ ko jox euh, fukki junni ak juróom-benn. Hmm. Euh, bu ne 400 jeunes bu leen te yaakaar naa ne amaluñu kenn fii. dërëm kenn waru maanaam une fois que dem nañu ba mbay mi sotti ñu góob bocc def ko si saabu dañuy woo danañ leen waar ñoom ñëpp ñu ne leen lii ngeen am alal jooju na la coordinateur waxoon ne dañ koy jëlaat du leen ko delloo mais dañ koy jëlaat ci teewaayu ministre bi ñu defaat ko ci biir mbay ñu jëlaat waxoon na ba dem ñaari téeméer juróom fukki ndaw ci sur la base de critères bien définis maanaam bëgg nga liggéey jàmbaar nga xam nga li ngay def te te nangu nga tamit lu ñu lu ñu leen teg sart yu leen teg ndaw daal ndaw Euh, Ndeye di met sa jàngat ci explication directeur bi. ah waaw bi day dafa tënk lépp parce que xam nga bu ñu waxee dagg rek. xel yi day dem ci promesse yi nga xamante ne ni président Macky Sall defoon na ko bu ñu jël réew mi. Mhm. parce que 2012 waxoon na 500000 emplois 2019 mu wax 1 million d' emplois. Mhm. tey bu ñu doon def l' état tey est que sax euh, créé na 300000 euh, emplois yoo xamante ne ni yu dëgër la. Mhm. parce que am na ci ay emplois yoo xamante ni c' est des emplois temporaires. yoo xamante bu suba mën nga utiwaat liggéey mm-hmm. comme situation yi nga xamante ni jeunes yi moom la ñuy expliquer am na tey ay structures yu ñu fi tegoon des gouffres à milliards mm-hmm. tey est-ce que def nañu l'état des lieux est-ce que def nañu évaluation pour xool projet yooyu ñu tegoon fan la toll ak fan la tolluwul yaakaar naa ne defuñu ko parce que am na fi ay structures yu bëri yu juddu woon yu ci mel ni ay ANPEJ mhm. yu ci mel ni ay kuréel yoo xamante nii dañ ko créé woon pour utal ndaw ñi xëy mhm. bi ci mujj mooy DER nga xam ni président Macky Sall ñu ngi doon annoncé ni dinañ ci dugal lu tolloog ci suñu xaalis tey soo demee pikin gële ci banlieue bi am na ci ndaw yoo xamante ne nii ba ñu déposé ngir am financement kenn xamul kañ la mhm. te ba léegi si jotuñu financement donc encore une fois problème bii nii dafa ñëwaat dabaat encore le président Macky Sall. Mhm. mi nga xam ne nii booba léegi nit ñi ñi ngi laaj xaalis bu bëri bi nga xam ne nii dañu wax ni def nañ ko ci xëy ndaw yi mhm. a fan la jaar et justement parlons de xaalis Mansour dafa mel ni bërëb yi yi war a jox ndaw yi xëy sax ñoom amuñu xëy na doole wala xaalis bu ñu bu ñu fay ndaw yooyu ba mën leen téye échec mhm. waxu directeur bi nii sama yaram bi sax doonoon daw vraiment échec échec lamentablement ay ndaw yu nekk di liggéey nga di leen fay weer bu ne quatre-vingt mille ñu produire mboq dag la domaine agricule euh, domaine euh, agricole communautaire mhm. mais est-ce que mbay dong moo fa nga nekk sa vision ana élevage mhm. ana baneen bay ana espace bi lu tee nga def ko deux parties di bay noor di bay nawet pourquoi mboq dong ana transformation bi c'est-à-dire que xale yi li ñu bay li ñu bay mboq mi ci gën a ñàkk solo. est-ce que xam nga ngooñu mboq ñaata lay coûter jamono ji camion bi. c'est-à-dire que manque de vision la. ndax mënuñu koo jox nit yow ngay wax benn budget wu di liggéeyloo ay téeméeri xale salaire wu quatre-vingt mille di wax ay budget wu trente millions mu ngand ci yow trente millions day xaalis. ci ci lu toll ni dak c'est-à-dire que manque de vision bu gouvernement bi la. Mm. tey ndaw yii fii ñu nekk nii mën nga leen a soppi ñoom ñëpp ñu nekk ay chef d'entreprise. Mm. mën nga sopp ci ñoom ay commercial pour ñu jaay mboq mi. Mhm. mën nga sabab ci sabab ci ñoom ñuy am relation ñoom ak commerçant yi ñoom ak yenn boulanger yi koy soxla am sax ñenn ñooy tàmmal ñuy participer ci ay foire di yóbbu ay saaku. te mhm. jël seen pour pourcentage. mais waxuñu la doon nga jëlee soppi leen ay mbindaan. Mhm. mais nga def leen ay chef d' entreprise. mais di di di estimer di naw benn budget trente millions. et puis nga ni mënatuñu leen a dañuy bàyyi.